asalaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd Mouhamadou Moustapha Ndiaye di gérant startup euh, Transpay ak DevTech boo fait tey li taxoon ma woote mooy ñu bari sax nee nañ ma na arrêté télé yi naa arrêté média yi mais dama gis ni su ma ko arrêté ragal naa ni ñi ma ko séqal dinañ ma nappaaje avancé wala sax duma ko fekkee li ko waral mooy fan yi seetaan naa benn émission bu naan xalaat TV nit ñi sax ñoo ma ko envoyé mais bi ma xoolee gis naa ni li mu wax. lépp daal dëgg la maanaam am na lu baree bare li des li des nag dafa am lu xew temps yi ma bëgg koo leeral Sénégalais yi ak bëgg ñaan képp koo xam ni kilifa ngi ci réew mi muy média yeeg muy euh, euh, procureur yeeg magistrat yeeg ak képp ku yëngu ci wàllu yoon mooy man dama gis ni bi ma defee saisie réelle bi ma exécuté euh, décision tribunal bi ba léegi maanaam gars yi ñu ngi may def gay ay poursuites judiciaires maanaam ci benn une semaine deux semaines jot naa douze assignations lii lépp ay assignation la ay assignation en bref délai ay assignation lii lépp ay assignation la am na ku dem sax ba def lu ñu naan opposition opposition ci opposition def opposition boo xam ne si ab jugement boo xam ne sii dafa am euh, dafa am euh, certificat non appel ni opposition presque am na ak mu def opposition am ñoo xam ne si ku mel ni euh, kuñ naan euh, agicap maanaam Abdou Karim Fall te daan ma jaay boobin moom ñaari doomam la indi ubbil leen société teg ak termique Solution ci la tàqale ko ak man moom it dama ko daan jox ay chèque di ko fay ay bobine mais bi mu demee ba gis ni business bi am na am na xaalis dafa dam jël sama ancien technicien doon liggéeyak moom mooy Samba Saw dam ba ci biir xulóog moom dam indi ay doomam implante fi affaire bi commencé di contrefait bi loolu amee ba léegi nag sonn naa trop parce que chaque assignation fii avocat yi nga xam ne sii dañ taxaw ci wàllu propriété intellectuelle bariwul am na ay mandataire te mandataire yooyu comme que bariwul à chaque fois buñ la assigné ñoom xam nañu da nga dem fay te boo demee ci avocat yi dañ la fayeeku 750 000 wala un million par dossier bu ko defee su ma jëree 8 8 8 assignation gis nga xam ngeen yëpp ni muy demee ma gagné leen foofu ñu defaat ab acte d' nga nar a demaat fayat avocat de suite ainsi mu sonal ma trop trop trop trop léegi ci biir assignation yi dama gis assignation yoo xam ne du am tour du am tour damay gis rek GIE tata ku mel ne Abdou Karim Fall ma fii GIE tata attaqué ma fii attaqué du am tour du am dara te dinañ ñu woo dinaa fay lu nekk fan yii nag ma gis mooy euh, mooy euh, mooy euh, ponkal bi fan yi li ma gis mooy dafa am benn mutuelle d'épargne bu ñu naan Medtrans. maanaam pour man mi ngi ci lobbying mu ngande ba ma leen waxoon parce que am na benn lettre moo leen waxoon ni directeur des opérations CETUD moo ko bindoon moom ma ngi ca biir moom mooy yor xaalis bi nga xam ne si moom mooy dimbali transporteur di leen lebal xaalis pour ñu mën a am oto ak di leen cautionné xam nga loolu bu amee kooku day nekk benn nee boo xam ne si euh, maanaam xam ngeen fu xaalis am daal la may jariñ ak ka fay décidé ma wax leen ni leen en 2014 euh, monsieur Kanté defal naa ko benn mele ngi nii lettre la boo xam ne si dama ko bindoon benn offre la doon ma démarrer pour solution ticketing bi ba ma defaral ko envoyé ko bi ma ko envoyé joindre naa ci directeur AFTU maanaam Thierno Souleymane Bari ak Mamadou Kanté c'est en 2014 pour wax leen commencement bi ñu jige foofu ñu ñëw ba ci léegi 2014 mars 2014 envoyé naa leen contrat bi contrat baa ngi nii boo dee xool titre bi sax mi ngi nekk contrat Transpay AFTU MEC Trans pourquoi parce que dafa am lu ñu waxtaanee woon paa yi dañ ma boole woon ak moom pour mu finance projet bi mu woo ma ci bureau mi ñu waxtaan jubawuñ ma génn fexe nañ ba sama diggante euh, Samba yàqu na ñu jël Samba comme pion mooy contrefacteur SUDUPE bi mu defal leen solution bi ñuy liggéey gis ngeen lii 2014 ba léegi. ñu dem euh, ba mille 2015 2000 2000 2015 bi Samba con rupte yàqee contrat pour mën a dem ànd ak ñoom mi ngi nii lettre baa ngi ni ma xamal directeur AFTU ak directeur MECTRANS. Samba Sudipay bi ma doon ma defal prestation de service nekkatul ci ñun xamal ko ko gis nga ba mu amee pourtant même après Transpay mi ngi liggéey ak Sudipay léegi jël solution Sudipay di liggéey ak ñoom kii euh, Mectrans bii ma leen wan ñu dem ba ñu gagné arrêt définitif brevet bi mi ngi nii envoyé naa ko non seulement envoyé naa ko Mectrans directeur bi envoyé ko PCA bu directeur PCA ou Mectrans di euh, le président Ndongo Fall envoyé na ko. Mamadou Kanté directeur de de Mectrans ak Ndonga Fall PCA de la Mectrans bi ma leen ko envoyé pour ñu xam état évolution mi ngi nii jugement baa ngi nii jugement bi nga xam dafa am ab non appel nii opposition envoyé naa leen ko ñoom it mi ngi seen loxo envoyé ko surtout ñëpp ñi séq après transport bi envoyé naa leen ko mais nekkete depuis 2015 yàgg na am na ay taxi ratap yu ñëwoon taxi jaune vert jaune yooyu noonu. monsieur Sow Sudupay bind ma benn mail boo xam ne xamal na man ci Babacar Fall moom moo ko directeur des opérations moo ko booleeg ñooñu gis ngeen oto yooyu noonu dañ maa court-circuité fexe ba ni njaay bu mu ko laal maanaam bala ñuy jox kenn oto dañuy dañ lay imposé waale machine yi ñu bëgg ñoom te ñoom banque nii banque nii CETUD ne sont pas habilités di régler mais enjeu ak intérêt yi ñu ci am ak lobbying ma doon wax ñoo waral ñu def loolu pour court-circuiter ma taxi rétab yi aw ma ci benn oto lépp Samba lañ ko jox exclusivement te xam nañ sama diggante ak Samba xam nañ wor bi bi loolu amee bi ñuy saisi euh, novembre bi man tëbatuma tëbu ma tëb saisi damaa woo naan président Gora Xumma defe naa yéen ñëpp xam ngeen ko ni ko Pape Gora Xumma ah gis naa seen tax vert blanc yi ay machines yoo xam ne si machines yi ci nekk dañuy contrefaire sama solution Pape Gora Xumma ne ma ah loolu de doy na waar lan la lan la Ndongo Fall wax loolu ma woo Pape Ndongo le prix le PCA de la MECTRANS parce que le directeur de la MECTRANS su ma ko woowee du may jël te pourtant sama xarit la de ma woo le PCA de la MECTRANS wax ko ne ko ah papa gis naa oto yi de di def lii ak lii mu ne ma ah loolu de xaar ma wan ko ma envoyé ko directeur ma woo directeur MECTRANS xool mu woo répondre ma ni ma ah directeur MECTRANS de nee na joxewul benn machine xanaa kay transporteur bu bëgg fay mu fayal la joxewul benn machine bi loolu ma dellu ci góor xuma ni ko ah Petr ne leen joxul benn machine góor xuma ni ma ah kon de li defal li la yoon may ñu dem saisir biñ saisiree ba pare ma ma seet ñoom seen njiit kuñ naan Falilou Fall sëriñ falilu Fall laa woo moom mooy yëngu ci wàllu taxi vert blanc yeeg ma ko woowee wax ak moom ni ko bu ngeen bëggee ay machine pour bañ leen a lor bëggee na lor jël ngeen ñëw ma jox leen ay machine ñoom ñu ni. Mectrans moom moo leen jox machine yi bi ma leen waxee loolu pare ñu toog ci ci presque douze assignations yi ma leen wax am benn assignation bu ñëw boo xam ne en référé la ñu lim ci mbooleem GIE yi nga xam ne si jël nañ seen machine am na ñoo xam sax jëluñ seen machine 1 2 cinq 4 5 6 7 8 presque ba pare rek ni GIE yooyu doon assignation à Mouhamadou Moustapha Ndiaye ma woo président GIE yi am ñu ma ci woo ma leen woowee ñu ne ma àll yéwén yëguñu ni ñoom. mu suñu maa yóbbu ci yoon parce que séquñu ak moom man dara bi ci des mooy nee nañ ñoom machine yi Mectrans moo leen ko jox ñoom buñ demoon buy yóbbu ci yoon Mectrans la ñuy yóbbu ci yoon mais comme que Mectrans il n'est pas habilité à faire lii bëggu cee feeñ mënumaa assigner directement paa yi nee nañ monsieur Kanté moom moo ñëw foofu ni nañ def constat seen machines yi ñu jël mais bu ñu defee constat pare defe naa lañ ko war a yóbbul Mectrans bu fekkee ni moom dama koo tooñ mu yóbbu ma ci yoon mais Mectrans moom xam na ni moom solution bi daf koo sàcc di ko jëfandikoo te même bi mu xuloo ak Samba Sow avant taxi rata bi waa ñoom yenn ci agent góor xu may woowoon nañ ma dama laaj solution ticketing bi sama benn jigéen mais par la suite daf ni ma Mectrans ñoo ñu mujj a jël say machine lii lépp nag dañ koo def pour mettre ma en mal ak transporteur xam nga lu toll ni GIE yëpp. bu ñu demee ban ni yóbbu nañ ma ci yoon te ñoom binduñu fi turu kenn defuñu numéro téléphone kenn ma woo leen ñu ni me ñoom mosuñu maa yóbbu ci yoon kon mec trans moom moom ma yóbbu ci yoon mooy Mamadou Kanté day xeex nag day xeex benn jour nee na ma bureau suukar si bi ma sonnee dëgg dem naa pour jubook moom wax wax yu jeex xamala la ma wax soo mi man projet bi soow mi man maay suukar si su ma si dugg rek du saf ma ne ko waa dëgg la pour wax leen ni leen seen maanaam ku ci fàttaliku bërki démb 2004 rek yàggul sax lépp looy def sa sa moroomu doom wala sa rakk war a nga xoolaat baax loo toxoon ma joxe ma woote réunion bi pour wax leen ni leen lii lépp ay assignation la plus de 12 assignation fay naa avocat ba sonn damaa dem sax ba naan sama avocat est-ce que mënu maa dem plaire plaire plaideel sama bopp ñun ma lii affaire bind la nangam nangam ci wàllu propriété intellectuelle dafa tumuranke Sénégal ma bëggoon di ñaan Euh, dama koy bañ sax di ñaan président de la république di ñaanaan ñi fi nekkal yoon magistrat yeeg ñëpp tout ak avocat yi nga xam ne si ñi ngi jël dossier bi xam ni xel du dëgg ñu xam ko am na ñu ma ci xam di nuyonteeg ñoom ñu may ree di kalak man ñu xool bañ a lor ab jeune boo xam ne si dafa làqoon ci ruxam di liggéey di employé pour de quarante employés vraiment nous sommes très fatigués man maa woote woon tey euh, kii bi ku am question bu muy poser sax maa ngi nii je suis prêt à répondre toutes les questions. nga ne dañoo sàkk seen solution léegi yow est-ce que yow tey euh, xalaatoo tamit déposer plainte pour contrefait contre mécrance bi nga jàpp ne tey tamit moom la kii. waaw mécrance boo dee xool ci bànqaasu aftu la mécrance ci bànqaasu aftu la lié ak euh, Cap Trans lié ak Transvie lié ak ministère des transports lié ak. ministère de euh, maanaam bànqaas yu bari la mais seede xool li may def moom duma ko wax monsieur Kanté Mamadou Kanté directeur de la MECTRANS ñoom ñoo def lii lépp te ñi ngi may mettre en mal ak gars yi ak monsieur Karim Fall vraiment am naa jugement bu ko état bi maa ngi koy ñaan euh, mu mu mu jàppale ma parce que am naa jugement boo xam ne si amul appel amul opposition. vraiment vraiment lii daal baaxul daal vraiment mën na wax ji daal lépp mooy monsieur Kanté lii moom moo ko def assignation bi moom moo ko def transporteur yi ma woo yëpp président GIE yëpp nee nañ ñoom musuñu maa yóbbu ci yoon. te sant ñu ko. nga jàppee ne si boppam bi dafa nga dafa li ce que yow mii euh, que yoon may def ak moom kay kay du ma ko wax man kay kii il faut ma yóbbu ko ci yoon parce que. Mectrans man je fais partie de l'AFTU membre la AFTU mais lii bu ko defee xam nga la la jublu maanaam niñ ma diaboliser naan man damay enregistré rek renseignement généraux lu nekk ñu wax ma ko ba ñëpp ñemewuñ ma lii bu ko defee même chose la mooy mooy li président mag ba defoon rek booy ñëw mu ni leen dam leen man jaayuma leen euh, ticketing machine laa leen jaay mi ngi nii loolu la loolu la monsieur Kanté moo ko def Mectrans depuis 2015 mu ngi sàcc ci solution moom Kanté di ko utiliser ci kan ci monsieur Samba Sow xuloo naa ak Samba saw ma ñëw fa jubóog moom mu boole maag monsieur Thiam ma war bu commencé di waxtaan ak ñoom waa taxi rata bi woo ma ma jékki-jékki woowatuñ ma moom ma dem fa kenn waxatuma dara ma jékki gis ñu déployer les mêmes machines. ku xam moom mooy garant projet ah. nga leen moom monsieur Birame Aw CETUD woo naa woo na woo naa ba sonn. wax naa ba sonn wax naa fu nekk ba sonn woo naa leen mais ñoom affaire bi mu ne cappet am ñoom ñoo ñu war a xool lan mooy dëgg liy dëgg ñu wax ko li dul dëgg ñu tag ko nële man bañu maa bañu ma ñu wax ma lu dul dëgg ma nangu ko lu luy dëgg ma nangu ko avancé mais amul kenn ku ma ci woo ku ma ci woo sax doo ma jël amul kenn ku ma ci woo. c'est c'est lu tax muy daw responsabilité seen directeur des opérations ci boppam nee jugement bii état jugé. nee jugement bi état jugé nee na transporteur jugement bi état bi bi bi justice jugé baaxul c' est monsieur Babacar moo ko wax ni leen baaxul parce que kenn mënul breveté mbir mi te man je suis détenteur de trois brevets xanaa ñay ñay joxe brevet ñoom jànguñu wala wala ñun ñoo leen ëpp xam-xam. waaw ah, loolu euh, fi mu ne nii boo dee xool assignation bu nekk fi ne nii war naa ma douze am na. trois ak appel ak li des yëpp ay assignation la assignation bu nekk su fekkee yaa ngi jël avocat avocat bu la dimbaliwul dimbaliwul trop trop trop comprendre yaa ngi fay entre cinq cent mille ba un million amul amul amul amul sax dam ma dikk parce que ñi fi nekk dañoo tumuranke ñi fi nekk dañoo euh, ci wàllu propriété intellectuelle bariwul mandataire propriété intellectuelle avocat yi bariwuñ de est-ce que mat nañ dix matul dix léegi moom monsieur bien sûr bien sûr moom nii lay def moom ba moom mutuelle la day nekk ci diggante bi su transporteur yi waree fay ñaar fukk mu tag ci juróom sécuriser kii def comme man li mu bëggoon maanaam man ma ñëw bootu ci kawam xaalis bi mu koy jël di ci téq di joxe di jox li ci des mais su bëggee loolu nañ ma woo ñu waxtaan. mais man xawma ma bee tax léegi ma jënd ay costume commencé di wax tubaab ndax ñu mën maa accepté surtout ak ñoom ñëpp peut-être bloc bee tax ak kurus gi